ça va. La rubrique. Oh, mais soutenir mais bon que. oh pire non mais sujet ah non non non non voilà donc non non <laughs> voilà Da lay jox touti ménopause da manam ñoo même terminaison bi la bi andropause bi ménopause la. waaw nane nga dañuy ñi dañuy buñu tollé ci ben âge bi nga xamante ne mooy à partir de 40 ans 45 ans jëm kaw. Mhm. Euh, ba 50 ans dañuy dugg sen euh, période du ménopause. Mm. alors góor ñi tamit dañu am sen période ñom tamit mu tudd andropause donc. <laughs> <laughs> c'est vrai hein. ça ça existe. voilà donc andropause euh, <laughs> donc moi euh, ben mun nañ ko woowee tamit ménopause gourni quoi quoi. xam ni médecine du ñu bàyyi voilà donc mun nañ ko ménopause gourni ñi nga xam à ne tamit dañ koy am ci certain âge à partir de certain âge madame euh, âge mûr. donc entre 40 vers 45 ans ou 65 ans. absolument. voilà donc ñoom tamit même même même presque même réaction yi que jigéen ñi lay am parce que dañuy am problème mu test test test. <laughs> testostérone. testostérone. Mais on peut faire toujours des bébés, donc, contrairement à vous. Hein. <laughs> Voilà, en fait, le problème est que euh, a une baisse considérable boo xam koy am de testostérone. donc daf y a une baisse considérable. voilà. Hein? <laughs> Hein. testostérone voilà testostérone. voilà testostérone. voilà testostérone c'est tellement difficile de prononcer ce mot. absolument voilà donc ben le syndrome boo médicalement c'est pas médicalement reconnu. parce que tout simplement ben, état la boo xam te ne dañ koy am. am na xam c'est génétique donc dañ koy am déjà depuis euh, l'âge petit. Mhm. mu top leen mooy ñi nga xam te déjà euh, depuis ndaw dañu am problème mu euh, testostérone. testostérone. voilà mooy maanaam dañu am déjà faiblesse bobu côté boobu noonu maanaam seen sperme yi. au niveau de la virilité voilà virilul seen sperme yi virilul moo des fois da ngay dégg ñu naan la amna gor ñu ñoo xam te par exemple mënu ñu am dom parce que tout simplement c'est un euh, sperme viril madame, euh, doole les bimouarons waroon am et de telle sorte que d'un ils ont beau faire des rapports sexuels euh, non protégés avec une femme qui est fertile et tout ils sont am parce que déjà à la base c'est un sperme bi en fait c'est pas c'est pas de la stérilité non non non c'est pas de la stérilité c'est de la faiblesse au niveau des testostérones Madame, c'est un sperme bi euh, Madame production bi sen testicule yi wala produire. ci sperme bu bu normal. voilà du kii yi voilà yi ci wara euh, am. merci beaucoup voilà yow xam nga mo bi ferñeent yi nga xamante mom la wara am duñ ko am de ce fait ñoñu dañuy dem ba ben certain âge dañuy tollu ci période andropause boobu noonu. donc foofu la ñuy bu ñu deful ay traitement yi nga xamante ne moom moo adéquat pour mën a traiter loolu déjà dès le bas âge maanaam bu ñu ko teelee xam xam dinañ ko mën a traiter parce que différentes am na différents traitements yoo xamante ne am na ci loolu noonu mooy euh, déjà à la base bu fekkee médecin yi découvrir nañ ko dinañ la jox ay ay ay ovule yoo xamante ne daf lay permettre par exemple nga mën a yokk sa euh, euh, sa sperme bi hmm. dëgëral sa sperme bi am na ay traitements yoo xam ne en fait la moyenne d'âge pour hmm. avoir son premier rapport sexuel pour un homme hein, je parle pas de femme une hmm. femme c'est au mariage au mariage <laughs> Euh, un, homme, c'est entre 12 et, 15 ans, je pense, hein, si je me trompe. Mais une question. Ah là un homme bu am 12 ans à 15 ans mom ban femme bu amul jëkkër la wara dem non non non non pour faire bi ñu le ko très tôt là yow. fu fu ah, rek. <laughs> en fait c'est pour expliquer que né euh, xam nga bon de toute façon génération buñ euh, les jeunes font des rapports sexuels très tôt. Ah ils ont des des relations sexuelles très tôt à 12 mm. ans 13 ans gis 14 ans ils xalé bu amna déjà une euh, na ci prédisposition yoy non donc mm-hmm. soit mu ngi koy def wala il est déjà prêt pour le faire. si vous le faites s'il vous plaît portez des préservatifs abstenez-vous Gore comme Digène. voilà C'est est le conseil idéal. qu'on tout le monde mais juste pour dire que ne voilà ni que conseil ni ñenn ni di ko non non, la ko voilà mm-hmm. ils ont des relations sexuelles très tôt euh, donc ils découvrent la femme très tôt ils découvrent le euh, le fonctionnement de leur organisme mm-hmm. madame, c'est un fonctionnement de euh, testicule yeeg ñoom in scène dañuy tel développeur dañuy précoce au fait mm-hmm. donc ñooñu dañuy mundi d'un rapport sexuel rapports sexuels après le problème est que est-ce que tu as du sperme viril ou pas, lolo, tu le découvres au fil des années. Absolument. Madame, c'est pas à ah, tes débuts juste de rapport sexuel que tu peux le découvrir, mm-hmm. parce que début, voilà, ton objectif, ce n'est pas forcément d'engrosser une femme, etc. C'est le plaisir. C'est le plaisir. C'est le plaisir. Mm -hmm. Mais il y a des niveau, par exemple, euh, objectif bi tey xam nañ ne ku ci jabar ku li ngay xaar am mhm. alors Sénégal fi on a beaucoup de préjugés dans ce sens là parce que parfois di couples gis couple bo xamantene 10 ans ou moins de 10 ans en 2 ans 3 ans ils n'ont pas d'enfant automatiquement dañ koy diñ ku jigéen bien sûr am problème alors que au fond ce n'est pas la femme c'est l'homme au fait qui a un problème au niveau de son euh, de son sperme faut parler, parce que justement testiculum yi dañu produire euh, sperme bi ñu war a quantité de sperme bu ñu war a euh, bu ñu war a produire ba pare sperme bi du viril du viril mooy maanaam sperme bi dafay oyof quoi c'est-à-dire que amul benn njëriñ noonu lañ koy waxee amul njëriñ quoi mm-hmm. sperme bi amul benn njëriñ il a beau éjaculer il a beau faire passer le sperme ça ne produit pas mm-hmm. donc loolu mooy waral en général du ñu am doom léegi loolu nan lañ koy découvrir mooy que ngeen def ay test à deux habituellement noonu lay demee mooy couple bi dañuy dem ci ci gynécologue wala benn spécialiste mu xoolal leen ku ci nekk defal leen ay test def ay échographie def ay pour xool exactement problème bi fan la jógee alors on se rend c'est à ce moment là qu'on peut se rendre compte que le problème ne vient pas de la femme mais de l'homme alors quand c'est très tôt décelé comme j'ai dit il y a des médecins qui sont prêts à pouvoir qui qui ont la possibilité je veux dire de le la dimbali de telle sorte que ne voilà soit tu injecter le testostérone voilà dañ injecter testostérone euh, testostérone wala ñu euh, jox la ay gélules yooyu nan, jox la ay ay euh, traitement boo xam pour rendre viril justement sperme boobu noonu am na sax day nek un sperme artificiel parce que voilà artificiel on peut dire ça comme ça parce que c'est une production du naturel absolument La femme ay composants yu ñu lay jox permettre sperme de mën virilité donc du nek le naturel et puis de plus en plus on se rend compte que les gens si nous ne que dañu am nous dañu dem banque de spermie. voilà ko confier ko moment où nous ko fécondé nous ñu. voilà justement oui c'est ça mooy banque de banque de sperme en fait. bon après in vitro bon, bon boobu benen, beneen étape là. mooy c' c'est carrément que tu sais que là là là. en euh, général ça in vitro c'est d'habitude chez les euh, dans les cas où la femme elle est plutôt stérile. Mhm. C'est plutôt dans ce sens là mais pas ci ku góor en général ci ku góor ki ce fait que sa sperme y a beaucoup de banque de sang beaucoup de reproduction de reproduire parce que sperme c'est pas boppam amul benn virilité. en fait en fait je parlais en fait du traitement mais soo ko defee euh, moment boobu da ngay bëgg rek jël sa banque rek. voilà après tu peux l'utiliser à fond. justement mais euh, juste pour dire que en général ni nga xamante ne dañu am genre maladie yoy doon déjà à bas âge wala lo xamante ne daf la yàgg ci ñoom. mu la voilà ñoñu en général bu ñuy yegg ci âge mûr. lu ñu munti munti produire de de de testostérone testostérone au fil des années bu ñu tollee ba ben âge bi muy à partir de 45 ans ba 65 ans euh, andropause. ok voilà dañuy dugg ci période andropause. andropause égale faiblesse. Euh, voilà diminution de la puissance sexuelle de l'homme voilà dañuy am carrément diminution de euh, de de la production. donc c'est seen c'est seen testostérone bi d'autres d'autres d'autres ah. virilité day faible carrément et ñooñu ils ont tendance à ne plus faire d'enfants. <laughs> ñooñu du ñu am xam nga tay ci ku jigen ki jigen entre bu nekkee ménopause par exemple. <laughs> <laughs>

automatiquement le mécanisme la buy nekk ci ñoom boo xamante ne seen mhm. c'est-à-dire faiblesse sexuelle ak ak andropause waaw andropause andropause du mooy c'est un man mu faible donc ko mën a produire doo ko mën a bokkul ak faiblesse sexuelle non si c'est-à-dire que non moom laa lay expliquer xam nga tey faiblesse sexuelle tu na la dab à bas âge par dû à une infection ou à un problème de santé yaa ngi may dégg loolu mën na nekk mais boo nekkee période andropause tamit da ngay amaale même attitude bi manam da ngay day ànd ak faiblesse sexuelle. bo bu sa manu ba kattan quoi kattan manam sa sa da fay wagné parce que sa production de. testostérone bi 20 ans ak léegi bokkul mais aussi aussi mën nga euh, mën nga nek am andropause té aussi do am faiblesse sexuelle. Ah, ah, ah, c'est obligatoire mom lay expliquer ni bo amé andropause bo amé andropause da ngay am faiblesse sexuelle parce que da ngay am diminution de production de testostérone et bo amé diminution de testostérone rek moy da nga am faiblesse sexuelle mais testostérone ci bop moy la testostérone moy li nga xam te ne ngay produire pour mun pour mun a sa sperme xam nga waaw moo tax mooy ba léegi man lool lay lool lay pour la pour mun sa sama bopp mhm. c'est-à-dire puissance sexuelle go, wa puissance sexuelle góor mhm. maanaam moy

tay bu fekkene da nga nar am puissance sexuelle lii wara a tax tey ñuy waxe virilité ou sa puissance sexuelle c'est parce que tu fais de la production de testostérone non mais la moy virilité virilité moy manam du góor waaw mais je veux te dire que mécanisme la man si sama entendement moy euh, comme li nga ko euh, la la l'homme a envie il bonde mhm. et il éjacule voilà éjaculation bobu stade bobu mom si la nek mom voilà euh, xam nga ñun kattan am quand tu as 18 ans 30 ans, 40 ans, 75 ans beaucoup. oui je suis d'accord. en fait. je suis d'accord, mhm. je suis d'accord Al mais je mon wax mhm. le fait de bander et le fait de déjà ñaari bokkul beaucoup. ma jox la benn mécanisme. dañu ne par exemple syndrome bi ne par exemple dama la jox mhm. passage. ces symptômes vont de la baisse de l'appétit sexuel à l'arrivée de problèmes érectiles mooy ci peux pas maanaam mënuloo sax yow am plaisir sexuel bobu non ba mu naan ngi produire testostérone bobu non ba wara a éjaculer xam nga buñu né érectile rek moy li nga xam tane da nga wara war a éjecter loolu noonu ci bopam nga dul produire même boko produire tamit fay faible manam kattan bi nga wara am pour produire loolu non pour mën éjaculer da nga ko dul am loolu est faiblesse sexuelle mais quand on parle de puissance sexuelle c'est quelqu'un qui arrive à faire tout ce mécanisme là à arriver à éjaculer normalement uh-huh. quand on parle de faiblesse sexuelle c'est le contraire de puissance sexuelle donc c'est la même chose maintenant les gens yi nga xam ne érection normale et tout mm-hmm. mais dañu am euh, comment ça s'appelle il hypospermie justement j'ai oublié le nom baisse de de sperme. de sperme ba nga que manque de sperme carrément. c'est comme gens yi nga c'est frigide. non manque de sperme moom la plupart du temps li di am quantité bu ndaw tu ne produis pas beaucoup mhm. mais tu produis du sperme am na non xam nga cas yi différent am na ñoo xamante ne mën nañ produire sperme bu bëri mais seen éjaculation dafa précoce Moi, manam non non non pour un rien madame, maanaam nous pour un rien ñu ñu ñu ñu ñu éjaculation précoce. éjaculation précoce donc ay étapes yu là. la. mais taille quand tu es dans l'andropause moi laa l'ai expliquer c'est-à-dire que c'est dû au fait que déjà yow ce sperme bi du viril. yow sa bopp doo am puissance boobu nga war a am maanaam pour mën a jàll ci étape euh, bande boobu noonu produit euh, maanaam mën a def rapport sexuel normal ba war a mën a euh, éjec kii éjaculer est-ce que yaa ngi may dégg. man dafa lëndëm sama moi bon xam en fait c'est de façon on en fait c'est deux cas différents Ramga nga c'est une c'est une maladie c'est euh, une insuffisance pour l'homme d'éjaculer ou bien même de se sentir homme comme on dit entre guillemets pour ne pas être euh, aller dans les détails maintenant faiblesse sexuelle moi c'est passager comme il a expliqué ça veut dire que bah, ta puissance sexuelle diminue en fait à cause de l'âge à cause de la fatigue à cause du stress mais là c'est passager en fait et ça se traite je pense non quand on parle comme quand on parle d'une femme qui est ménopausée une femme qui est ménopausée elle peut plus produire d'hormones pour mun a mais elle peut toujours faire des rapports sexuels c'est la même chose avec quelqu'un qui est en andropause ça ne t'empêche pas de faire des rapports sexuels mais c'est-à-dire que tey faiblesse bi ñuy expliquer moy que bu fekkoon da nga dan am manam ni nga dan sentiree sa bop kattan doo ko amal ni nga dan sentiree sa bop pour faire une pour faire une relation sexuelle. da nga am érection non. waaw c'est-à-dire koo xam yow yow koo xam yow ko xamné yow yow bandewoo maanaam koo xam ne su sulu dafa dafa lapax mais kooku mënoo def dara mais loolu la lay expliqué déggoo li ma wax ah. lima ma liir léegi dama né ces symptômes vont de la baisse d'appétit déjà da ngay am problème pour mën sentir sa bop ba war ba wara a tax ni que yow pour yegg ci érection bobu sax day nek problème loolu allez expliquer Le mooy faiblesse sexuelle bi may d'où que l'on te pose c'est un voilà c'est un état non tu n'as plus voilà mm-hmm. tu es dans un état boo à comme digen, mm-hmm. jigéen bu que période de ménopause dafay le moment boo xamante ne gis nga période boobu bu jotee. Mm-hmm. dootul am envie def un rapport. parce qu'elle a tout le temps des douleurs elle a mal elle est elle est vraiment pas dans son état normal tant que dépassé le stade boobu nous du reprendre vie sexuelle normalement. mais un problème mon petit boppam comme comme on a dit de de de de prendre plaisir de mouiller wala de se sentir bien type moment bu muy def rapport sexuel donc si ku góor ki du nekk problème mais ci jigéen ki di am problème pour réceptionner lolo uh-huh. C'est pareil si ku góor ki bu tollee ci période andropause boobu il a du mal à sentir son état Madame, noonu maanaam ni mu ko peut-être 17 ans 18 ans 20 ans 30 ans d'autres ko sentir de la même façon parce qu'à ce moment là faut affaiblir effort qu'il a fait pour mën faire egg ci li il fera le triple pour y arriver et ce n'est même pas évident que mu yegg parce que mu ngi ci période on repose boobu noonu moo tax ñu ne am na ci ñoo xamante ne ça les arrive seen boss dafay teel a déclaré wu parce que ñoom ils ont déjà eu des antécédents de ce problème là avant maanaam seen courant de jeunesse donc daf leen di dabaat ci âge boobu noonu am na ñoo xam ne nag dafay nekk loo xam ne daf leen di dab dañuy dem ba toll ci benn âge bi parce qu'ils ont eu beaucoup de rapports hum? ils ont eu peut-être euh, une activité sexuelle très très euh, intense, très intense à un hum. certain âge ou bien ils sont dus par exemple comme on dit tout à l'heure de stress boo xam te ne dafa dafa perpétuel wala de problème yoo xam te ne. wax nañ dëgg may de euh, internet yi nee nañ na gën a leer lii nga man nii ni ma ko comprendre ñoom na lañ ko comprendre. non non non dafa ne il faut faire attention les hommes. non non avant faire attention aux hommes lu mu wax ci kaw. Euh. lu mu wax ci kaw ce bout de Hamne, même médecins ils ont du mal. à ah, définir réellement euh, cause principale mais il faut juste comprendre que à un certain âge de la vie. il y a pour certains hommes yo maintenant ne. dinañ dem ba tollu âge bo xam ne dañuy am andropause comme ni jigéen ñi di amee ménopause de non la ñuy andropause. moi ça veut pas dire que c'est pas parce qu'ils étaient virils toute leur jeunesse qu'à cet âge là ils vont continuer à être virils ils peuvent arriver à cet âge-là un problème faiblesse sexuelle un problème d'érection, un problème production de testostérone testostérone boobu non, boo ko produire tu ne peux pas prétendre avoir des enfants. waaw <laughs> tu non non c'est une question à poser Comment hein. ah, ah. moi si je comprends bien. Ça à dire dama bëgg mu leer sama Ça ok si je comprends bien Ça demande dire problème belle. la. Mm-hmm. virilité maanaam góor boo xam viril nga maanaam da ngay taxaw dëgg maanaam da nga am deret bu fort bu dugg ci sa biir awra pour mu taxaw këj bokkul ak sperme bi sperme pour nga ba a am doom bañ a mun a am doom xam nga ni des fois. mais mooy finalité bi en fait. voilà mais lan mooy produire lan mooy produire sperme boobu pour yow. lan moo koy produit lan moo koy produit mais deret boobu noonu di ñëw di dugg ci biir di di dem ci awra bi moom mooy def la sa mécanisme yaram di def production boobu noonu. kon léegi moo testosterone xaw ma testosterone xaw ma lan moom mooy. <laughs> ah moom mooy non mais loolu est-ce que Maïté du dem nekk prof Ecofam tamit. Ah, parce que man damaa jaaxle. ah man yow damay. <laughs> Seydina moo tiit fi mu toll nii loo xam te ne. non non <laughs> hmm? xam nga xam nga lu wax ñuy laajte. waaw non damay laajte rek de. Hmm. ah te man xam naa ne am na ñeneen ñuy laajte tamit. Hmm. ah damay laajte rek. muy sama laaj da nga bëgg a posé benn question avant muy tëj. bon. xam nga waaye c'est la première fois merci beaucoup période habituellement c'est que Sénégal appréhension le temps mm-hmm. par exemple de euh, de puissance sexuelle madame, il n'arrive pas à bander comme il faut ou il éjacule tôt ak wala dafa dafa stressé ak dafa lii dafa laa am na ñoo xamante ne c'est un problème génétique mhm. boo xam ne c'est depuis la naissance ben, un problème qu'ils ont une maladie qu'ils ont depuis qu'ils qu'ils sont petits mhm. loolu mooy dem ànd ak ñoom ba toll benn âge bi am na ñoo xamante ne nag dañuy dem ba toll benn âge mooy problème andropose bi ñuy wax nii nga xam dañuy toll ba benn âge boo xamante ne même symptômes yi la ñuy am Maïté pour avant ma lay dox. am na ñoo xam ne dama leen di partager tuuti xam nga lan la Seydina comprendre des fois da ngay gis couple bo xamantene ne ku góor ki daf ci nek nek di et tout mhm. jabar bi mënul am dom mhm. mais góor bi day def ci bopam ne comme ce góor la mi ngi bopam di def comme il se doit kon lan motax mom febar bi ñu ko koy le non comprendre ki ko d'après man li ma déglu ngeen koy wax d'habitude bu len lolu dalé

lan mooy dif lan différence faiblesse sexuelle la puissance sexuelle dafa ah man kat loolu laa ko. non dama bëgg wax ni que yow mënoo accepter tu ne peux pas accepter ah non da nga ne ko na def différence bi entre les deux. waaw entre les deux. tu peux pas comprendre xam nga non defal ndànk mécanisme dafa simple xam nga man li ma wax sànq dafa mhm. leer. Mhm. di liiral naa la benn passage boo xamante ne médic mhm. médecin yi. ñoo ko bind. xam nga bu ñuy naan euh, anamu sax partie boobu noonu bi ma lay liiral bi ma lay naan ces symptômes vont de la baisse de l' appétit sexuel. déjà yow. t'as plus envie. envie bi nga waroon am maanaam yow li ngay wax noonu mooy maanaam euh, deret boobu que wara a egg ci euh, pour permettre la nga sax sensation bobu ko dul am déjà. wa légui la la hypospermie. wa hypospermie du baisse de de quantité oh, là tu parles de baisse de quantité waaw xam nga ci parles dafa baisse de quantité mais avant baisse de quantité boobu noonu. mais loolu c'est une autre maladie avant baisse de quantité déglu rek avant baisse de quantité bi. sama rubrique bon plan dégg nga. waaw léegi avant baisse de avant baisse de avant baisse de quantité boobu noonu am na baisse d'appétit d'abord mooy envie bi si boppam doo ko am. c'est la même chose c'est une c'est une femme qui est monopausée loolu laa la bëgg expliquer. tey xam nga tey jigéen bu nekk menu période de ménopause mooy jigéen bi nga xamante ne moment boobu noonu du am benn envie sexuelle. Mhm. maanaam munoo wax ba femme boobu noonu euh, jouir parce que moment bobu non li permettre psychologiquement ak lepp préparation bi fa hormonam am am pour que mu meuna a réceptionner sensation sexuelle bobu non jouissance bobu non du ko am fofu lay njëkk commencer. bu commencé ci loolu mais forcément su que psychologiquement tu n'es pas prêt ou psychologiquement pareil pour meuna bander mais mon cher tu ne bandes pas donc loolu mooy indi. yow li ngay wax nii moom laa lay expliquer c'est-à-dire góor ji may de jigéen gi ñun ay góor la ñun ñoo la gën a xam li ñuy wax. waaw mais man dama nekk di basé wu xam nga tamit boo boo bu ñu naree werantee bu ñu naree werantee ci loolu dafay métti xam lu tax. parce que man je me base sur des dires yoo xam ne les médecins l'ont dit par rapport à cette maladie. y a d'autres maladies aussi qui existent mais taille on parle d'andropause lan moy waral ngay nek ci période d'andropause man loolu la nek di wax man je me base sur les informations que les médecins ont donné ci li nga xamantene non lañ définiré fièvre bi ñom luñu wax dafa lèr baisse d'appétit sexuel la bo xam ne day yegg ci problème érectile problème érectile kay moy manam doto mëna ci euh, manam bande banane naan yaa érection kay loolu la érection kay bala mo am bande am ba paré doogu érection wara am donc bu bande amulé nan la érection di amé non seulement doo erect doo def doo def érection te bu amone tamit li problème bi ngay am moy sa sperme dadul am virilité bi mu wara am lolou mom la la bëgg expliquer te da fay am d'habitude sur des cas de personnes yo xamné soit ils ont eu des antécédents de maladie depuis un certain âge wala ñu dem ba tollu ci de âge bi mu certain âge comme nous avons des génétique depuis la naissance ils ont un problème ça n'a pas très tôt été décelé mhm. ñu que ak mom, dinañ ko traiter mais nous avons des di Je vais rajouter une affaire je vais ne dama ko sur Wikipédia vraiment pour ñu tëj rubrique mhm. chez l'humain le testostérone joue un rôle clé dans la santé et le bien-être, en particulier dans le fonctionnement sexuel. Entre autres exemples, ces effets peuvent être une énergie accrue, mhm. une augmentation de la production de cellules sanguines et une protection contre l'os l'ostéoporose mhm. étant un des principaux androgènes, le testostérone est nécessaire à un bon développement, euh, un bon développement sexuel chez le mâle. Voilà. Je pense que c'est ce que mbir bi. dëkk hein? na que expliquer production de testostérone est une culture norme automatiquement vous ngay sentir faiblesse sexuelle non alors comme ni ñuy expliqué, ce n'est pas un état continuel. c'est un état temporaire boo xam te ne koy am ci période comme ni di ménopause entre. 45 ans ba 55 ans après day génn dina nekk dina continuer di nekk ci benn période de ménopause mais état bi mu don nekk day changer dina mën après continuer def ay relations sexuelles am ci ku góor ki nak état bobu noonu téréw ko mu def ay rapports sexuels am mais rapport sexuel am yi ñu nekk comme ni mu don mel mm-hmm. est-ce que yaa ngi comprendre dina am peut-être dina dem forcer bopam envie wu def relation sexuelle dina bëgg def relation sexuelle mais mën na bañ nekk ci même état bi nga do xam tane mom la daan am bu mu nekkee par exemple euh, dans son état normal. parce que tout simplement feebar bobu la am. Mhm. donc juste pour dire que ni jigéen di ménopause di am ay euh, di am période de ménopause non le gor di amee période de ménopause entre guillemets appelé andropause loolu laa bëgg expliquer donc nit ñi nañ def attention parfois c'est un problème de santé boo xam te ne da leen di dab au fil des années mooy maanaam ñu amoon déjà problème sexuel boobu noonu problème de virilité de sperme boo xam dañ ko amoon depuis bas âge traité wuñu ko ba mu baax ñu dem ba toll benn âge bi mu fekk si leen ñëw nekk gën a gën a compliqué voilà ak yeneen ak yeneen donc loolu mooy euh, entrepose xamoon naa ne tey moom sujet bi du yomb parce que tey góor ñi dañuy attaqué te xam nga góor ñi moom boo leen di neen ni que viriloo rek dañuy yaakaar ne yaa ngi leen di Mais non. xam nga parce que ñoom pour ñoom viril c'est c'est impératif c'est impératif c'est un c'est un vouloir hmm. mais ce n'est pas forcément une chose qui peut être réalisable c'est pas éternel. C'est pas hein. éternel non plus. La puissance là. Les gens qui ont des problèmes d'andropause, ils n'ont pas demandé à avoir des problèmes d'andropause. parce que 70 ans ñu mën a euh, voilà def le ñu def. parce que gis nañ fi 70 ans dañuy jour ay mhm. mais à 60 ans ou à 50 ans ils ne peuvent plus. c'est fini. Maïté, il est, 8h10. Euh, je pense qu'on a fait le tour <laughs> et qu'on a remis les choses dans leur contexte. Voilà. Et euh, c'était King Santé. Nous avons faire